sant yàlla di sant waa kee bi ñuy amee kee bi ndax xam naa ne bu financement bi ñëw rek soobee yàlla ñëpp daan nañ jot. yow jotagoo man moom jotaguma. jotagoo yaakaar nekk jotagoo ku fa woon dama demoon ndar waaye déposé naa bu soobee yàlla am naa yaakaar xam naa danaa am ndax xam naa fu cànne nekk lay birisu nekk fa jabel mbegel nekk fa xam naa duma ñàkk danaa am bu soobee yàlla waaw. jërëjëf ana lan nga leen di ñaax ñoom. waaw ñu góorgóorlu rek. jàppekee bi te jàppale jigéen ñi waaw ñun amuñu lu dul moom te ñun tu amuñu lu dul ñoom. li moo nekk li nga xamante ni moom lañ leen indi seen émission li ci xel yi di leen dox rendez-vous beneen yoon tey nag liñ doon waxtaane mooy affaire jigéen ak affaire sociale laaj suñu yaay yi nga xamante ni euh, ñoom la mbir mi concerné ndax yëg nañ ci seen bopp beneen yoon incha allah fi lay xewee ci Allo Dakar seen émission li ci xel yi day ñëwaat jaa ngeen